jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu jéggalu bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di yéex door gi xibaar yi ñu tàmbalee ko ak itam li nga xam ne moom moo ci gën a fës bokk na ci jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew demoon ca banlieue bu Ndakaaru jaar na fu ci mel ni ci Tivaouane Diacksao Kër Massar yëmbal ginnaaw itam bi ñu déclenché li nga xam ne moom moo di plan d'organisation des secours moom Antoine Félix joom nag baat ak tontu dox na ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di dund yooyu la jafe-jafe ñi koy dund ba tey wax itam li nga xam ne moom moo di seen ak mer la nga xam ne naqari na leen eh, ci jamono yi nga xam ne nag ñu ngi dundeek ndox mi ci li nga xam ne moom moo di eh, seeni ay eh, makaan mu mel ni itam ki nga xam ne moom moo di jiit bu mouvement zéro inondation muy ñaalu baax a baax koppar yu bari yi nga xam ne sóob nañ ko ci wàllu wi te boobaak léegi France daal di xëddéem amul benn solution woo xamante nii nag nemmeeku nañu ko ci mu daal di ñeel wàllu saafara ci yile jotaay xibaar di ngeen teewlu ay kàdduk Abdou Samad Diop daañu wax itam ci mbas tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb lu tollook juróom-ñeenti doomi aadama ñoom ñoo toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett ci ay kaa positif la ñu am accident yu métti yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ca diwaan bu Kaolack ba ca mujj yàggul dara xam ngeen ne lu tollook ñeenti doomi aadama ñàkkoon nañ seen bakkeen ginnaaw ñaari ndaamaar ba ñu rek mbëkkante bi la yoon nag njiit bu chambre de commerce diwaan bu Kaolack moom rek moom mooy sàkku ñu daal di jëli dogal ci mbir mu bokk na ci li koy rek joyantiwaat port ba fa ngir rek accident yi doon loo xamante ni daañ ko fàttaliku diwaan bu Kaolack mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañ ci toftal li nga xam ne moom la yéene kaay yi xëyee niki tey ji léegi-léegi mu dikk ñu faram fàccee jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko da nga xam ne nag noonu la ñu ko junjee woon jëwriñ xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew xam ngeen ne ni ki démb ma nga woon ca banlieue bu Ndakaaru jaar na fu ci mel ni Tivaouane Diacksao yëmbal ak itam Kër Massar ginnaaw itam bi ñu lancé wala boog déclenché li nga xam ne moom moo di plan d'organisation des secours moom Antoine Félix Diome askan waa teeru nañu ko baat ak tontu itam dox digganteem ak askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca banlieue bu Ndakaaru Fatidien Younous Diatta ci reportage. tukkib nemmeeku bi Antoine Félix Diome di jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi amal akub délégation ci gox yi nga xam ne askan wi fi yeewoo mbënn mi da leen a laal lu yomb ci moom fu ci mel ni Tiwaawan Jaksaaw askan wu mer bu futt dafa fekk ñu toog di ko xaar. moo koy laisser dox. xuus si ndox mi dugg ça c'est pas normal on est des habitants on est on est des des des, des citoyens de ce pays nous contribuons ah à la bonne marche de cette société il y des cadres à des ingénieurs des docteurs des gens qui sont diplômés qui travaillent dans des très grandes structures qui ont des entreprises qui participent à l'économie de ce pays je pense aujourd'hui ñu dañ ci war a gis suñu bopp fi nga wàccee juste autoroute à péage bi y a bassin à ta droite bassin boobu c'est pas relié directement vers la mer loolu moo ñu créer situation bi ñuy dund nii. joxalante kàddu amoon na diggante woowi askan ak jëwriñ ji ak ñamu àndal waaye dafa mel ni askan wi li ñuy dégg muy jóge ci kilifa yi dalul seen xel benn yoon. le PIS c'est le programme de mise hors d'eau de toute cette zone là qu'on appelle Pikine irrégulier sud il est dans sa deuxième phase ils l'ont dit il y a eu des mais ces bassins ne sont pas encore connectés. drainer. C'est parce que le projet est toujours en cours. c'est des bassins qui ne sont pas encore réceptionnés. C'est des citoyens qui connaissent, qui, com qui comprennent et qui connaissent également l'état d'exécution des projets. Ça, c'est important. Ouais. Donc, ce qui fait que c'est en toute transparence mhm. qu'on est en train d'échanger. Mhm. Mon préfet mhm. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est peut-être avoir des éléments d'information précis pour expliquer par rapport à, à, par rapport à la situation. Mais exactement, parce qu il est en seulement li ñu waroon def moom mooy accompagner comme à Kër Massar accompagner les travaux avec un dispositif de prévention c'est-à-dire pompage ou drainage fii ci Kër Massar nag askan wi dañoo jàpp ne mbënn mi ak nanu ko yoree jaarul yoon loolu nag tax na ba jëriñ bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale maire ba futtu moom sax bi la doxalin neexu ko benn yoon longtemps, depuis plus d'un mois, cette pompe est là-bas. C'est une pompe de 600 mètres cubes, électropompe, qui évacue l'eau. Évidemment, il faut renforcer cette pompe. mais il faut pas dire que la parce qu'il a qu'on a ces bi ñu indi ko non la pompe est là. bon bon kii léegi Diallo on va pas polémiquer. c'est-à-dire que yow li nga wax leer na da nga bëgg cest à que soit l'historique ce qui aujourd'hui il a un besoin de renforcer. la capacité de pompage c'est ça mais donc c'est bien noté. li ko dalee caaro jàpp Kër Massar jaaraale yëmbal ba jàmm gën askan wi ne ndox mi da leen a wër ndomba seen i doléance jébbal nañ ko jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi Antoine Félix Diome daal di dekkal plan ORSEC. Faty Dieng loolee nag euh, ñu jébbal jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew la ñu jébbal askan wu euh, téléspect bokk téléspectateur yu télévision euh, Futur Média ndax itam jàpp nañ ne jamono yi nag seen ak xol neexul ginnaaw itam bi ñu dëkkeek li nga xam ne moom moo di ndox mi ñu teewlu seen i ay kàddu ci micro Habib fay ñëpp parce que tamit mënuñoo ray oto gaare ko ñeneen di dem feneen ñoom ñu dëkk ci ndox mi mais nañ leen dimbale rek defaral leen ko bu jógee. chaque année ndox mi inondé suñu kaw chaque année ndox mi inondé suñu kaw suñu kër suñu waa kër yi ñëpp toxu nañ kenn newatu ci boo fa duggee léegi danay tiit ndox mi fii la lay niveau yi di toll kenn du wax kenn du kaas parce que bëgg ñu yàq bëgg ñu def dara moo tax chaque jour ñuy taxaw di wax suñu droit. doléance bi mooy ndox mi ñu defoon na assainissement ñun sonn nañu dee nañu depuis àjjuma ba léegi doo ñemee génn amoo foo jëm néegi taa taa nañu ali lali tëmm nañu télévision yàq nañu. semaine ma maa ngi ne Orange Money moo ma génne pour moo mën a récupérer ji lekk sax pour ñu génn nii pour lekk la. nii la ñuy dund suñ suñu ndugg Cees la jóge sama yaay moo ñu dugal kii moo ñuy dimbali ñoo taqaloo kër parce que ñun presque defaguñ fi un an. muy génne bu tawee ni muy génne comme vague loolu moo ngi rëy ñëpp instant douze yi day fees léppay génn léppay fees dell une semaine laa ñu ngi nii xoolal nelawuñ ci lal sama mère sànq la ma woo léegi la ma woo pour euh, ëpp ñoo ŋàcc sa 45 mi damay toog laay laay pause ŋàccaat kii mu ngi am 9 ans kenn ki 5 ans kenn ki 3 ans. ah loolu xale yi mënuñu dund ci situation bi duus yëpp a fees gis nga tey jii sax la xaw a wàcc ni waaye duus yëpp a fees amuñu fu ñuy lii xanaa sama salle de ndox bi day yéeg hmm? waaw day refoulé canal yi parce que fii bu ñu liyee ndox bi da ngay ngàcc ba sonn canal yi ndox yi ñoo koy indiwaan ah lu ñuy def ba léegi si kaw lu ñu yéeg man ak sama euh, kii raqu jëkkër ak sama doom bu góor bi ñoo fi des xale yëpp ñu yóbbu leen ak xale jigéen ñi. sonn nañu. ndax ñu ngi xuus si ndox mi ku mu duggul sa lépp la am lépp guddi doo fi jaar temps yee passé la am benn taalibe boo xam ne jaan la ñu rey ba pare def ko si mbuus téye ko nii maa daje ak ñoom nangu mbuus mi deneen sànni leen ko xam ngeen ne nguur bu Sénégal génnee na ay koppar yu bari ngir rek ñu daal di saafaraal yooyu lee euh, jafe-jafe koppar yooyu ana fan la dugg ba tax itam euh, njiit bu mouvement zéro inondation di ñaawlu bu baax a baax lu ni mel tey sàkku euh, ci président Macky Sall mu jël mbir yi def ko yëfi boppam ñu teewlu ay kàdduk Abdou Samad Diouf ci micro Chérif Dia. milliards defati nañu ko ci mbënn mi te loolu yàgg nañ def ay milliards te problème bi mënul régler dafay won que ne tey war nañu xoolaat li nga xam ne mooy mbir mi parce que at bu nekk même problème yi la population bi di dund ci même jafe-jafe lañ dund boo demee tey ci banlieue bi di nga gis tey ay milliers de milliers de familles yoo xam ne tey génn nañ seen kër amuñu fu ñu dem am na ñoo xam ne dañu obligé mujj dëkk ci biir ndox mi te loolu dafa nekk ay problèmes yoo xam ne at bu nekk askan baa ngi koy dund nag ñun ñi nga xam ne ay population bi dañuy ñaan président de la république def nañu 511 milliards te taxul problème bi réglé pour le programme décennal et loolu yëpp président dafa war a def un bilan à mi parcours saytuwaat mbir mi xoolaat mbir mi càmbar ko ba am li nga xam ne mooy xam lan mooy le mal mais su ko deful chaque année même problème mooy répété wu. milliards ñu def ci mbënd mi man dama jàpp ne rek ne gars yi ñoo bëggul inondation jeex parce que boo xoolee liñ ciy def te mënul jeex yaakaar naa ne tey xëy na lañ cay am ak lañ cay dundee ndax bii bukki bii njur bii sàmm loolu rek moom moo ci am loolu moo tax ma ne nag président na jël le choses en mais parce que les les marchés gré à gré surfacturation yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu inondation loolu dafa war a jeex parce que xaalis bi lañ ca déclaré fa mu war a jëm su fa demoon kon heure bi problème bi réglé wu na. Grand Yoff itam am na yenn ci ay gox yoo xamante ni xam ngeen ne ndox maa ngi fa euh, tàggatémbe ndaw ya nga xam ne itam ñoom ñoo fa yeewoo leneen itam loo xamante ni ñu ngi koy jooytu euh, boobaak léegi mu ñeel wàllu agression yi ñuy nemmeeku ca seen gox lu ni mel la ñu bëgg rek mu daal di dakk bëggatuñoo nemmeeku benn bakken wurat mu ñeel wàllu agression ginnaaw itam seen janoo ak way taskatu xibaar yi Moustapha Seck moom moo di coordonnateur ba àdduna jëmale ci micro Pape Fara Ñing ak Thierno Laurent Mendy. Grand Yoff près de 66 quartiers 400 000 habitants chaque jour même chose même truc ñoo fay am ñun tey suñu rakk yu jigéen bu ñu génnee sañse ba rafet dem Almadies dañuy rusa wax ni Grand Yoff lañ jugee parce que lu tax liñ fa bàyyi moo rafetul loolu moo rafetul ñun ñun bu ñu toogee dañoo bëgg a fier bu ñu bu ñu bu ñu toogee ak fu ñu mënti taw dañuy bëgg a fier ne Grand Yoff la ñu te bu ñu continuer di seetaan jeunesse bi laay waxal bu ñu continuer di seetaan nii lay continuer booy du ñu am lu ñu def chômage bi di yokku tu préfères këf baa nga agressé te loolu lañu ñu bëgg tey mu deñ xam Grand Yoff ni mu bindoo xam ni Grand Yoff bassin bu zone de captage moo fa nekk bu bu Grand Yoff wetu jumaa ji moo fa nekk te bañ ko fay def wax dëgg yàlla nit ñi yokku nañ léegi ndax xanaa bu dee dix personne a dëkkoon fenn sax dañuy jur dinañ yokk loolu c'est évident léegi nag ñun xalaatuñoo xaar ci budget mairie pour defar euh, canalisation Grand Yoff parce que canalisation bi la xaaruñu budget mairie pour defar canalisation étude la def ak ay ingénieur xool lan moo ñu mën a dimbali basin ba ak kanaal bi nekk Grand Yoff nan la ñuy xool ba cumuler leen mais yarax daf ñoo jege géej moo fa nekk suñu mënee am ay tiwo yu mag a mag a mag. te bu ñu toogee di seetaan ni nawetu déwén nii lay continuer aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel mbas meeg am ci mim réew jàpp leen ne ki démb lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama toftalu nañ ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci yott dëddu juróom-ñett fukk ak juróom ci ay cas positif la ñu am ni ki euh, démb ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom euh, ci ay test yoo xamante ni ne def nañu ko jàpp leen lu juróom fukk euh, ci ay cas la ñu am ñi nga xam ne nag moom moo di cas communautaire yi seen ak lim tollu na ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar boobaak ak léegi limug doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo génn àddina ci Covid 19 nag ci xayma toll na ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett euh, fukk mu mel ne nag ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom nag ci aji tawat jamono yi may wax ak yéen nag wér nañu ba tàkkalikook jàngoro gii li euh, di euh, su ñu wax ci leneen loo xamante ni jot naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar mbokk yi di accident yi nga xam ne nag ñu ngi koy nemmeeku ca diwaan bu Kaolack ba ca mujj yàggul loolu tax lu tollook euh, ñeenti doom aadama daal di ñàkk seen bakken njiit bu chambre de commerce diwaan bu euh, Kaolack li muy sàkku euh, moom moo di ñu joyantiwaat port ba fa ndax lu ni mel mën naa tax yooyu la accident doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku dañuy teewlu ay kàdduk Serigne Bopp ci micro Pape mbay Diawo ak Faly avertir nañ ba tàyyi yàgg nañoo wax ne Kaolack dafa am ñaari transport yoo xam ne ni su développé wul Kaolack dana mujj saturé parce que Kaolack bu doon transport li jëm Kaolack rek mais Kaolack dafa nekk célébé yoon kon tey waroon na ñoom mën a fexe ba nga xam ne nii port bi nga xam ne nii fi lañ ko fekk yàlla yàlla defal ñu ñu géej ñu dundalaat ko ba nga xam ne nii loolu dana yokk sécurité ndax lii am Kaolack mënoon naa am ci diggante mënoon naa am mbuur mënoon naa am fu ne condition yi ko réunir ba mu am mu ngi fi waat tey looloo tax sax ñun chambre de commerce suñ mission am na leen loo xam ne nii ñu ngi koy waxtaan ak autorité yi ba mardi am nañ benn CRD boo xam ne l'objectif mooy chambre de commerce investir ànd ko ak Ageroute ba nga xam ne nii danañ investir ay ay aire de repos ci buntu dëkk bi nga xam ne nii camions yi bu ñu ñëwee danañ mën a gaare ci bëccëg bi ñu mën a jël ay décisions yoo xam ne benn camion du circuler ti camion étranger du circuler ti Kaolack ci journée bi dañuy bàyyi ba guddi ñu dugg fekk oto yi wàññiku loolu incha allah buñ ci amee accordu autorité yi chambre de commerce ci délai bu matul 6 mois dana ko mën a defar ànd ko ak consommation bi dana wàññiku ndax loolu moo am ci àdduna bi yëpp malien yi am sax boo demee dëkk bi ñuy wax kat yi soo demee camion du fa daw guddi du fa daw bëccëg bu camion yi ñëwee dañuy gaaree ba guddi ñu escorte leen ñu génn kon je pense que am na solution immédiate bu ñu mën a régler loo xam dans trois mois six mois mën na nekk ñu àddu ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu euh, tàggat yaram wax itam ci coupe du monde bu beach soccer xam ngeen ne euh, gaynde yi daal nañuy qualifié ci li nga xam ne moom moo di euh, quart de finale bi ginnaaw ñaareelu victoire yi nga xam ne am nañu ko jëmale ci Portugal ñoom ñoo door juróomi bal ci ñett mu doon loo xamante ni ñoom itam ñu ngi wëy di wane li nga xam ne nag moom moo di seen ak xarañteef gis ngeen ko noonu ginnaaw nag beach soccer ñu wax itam ci leneen mu afro basket mu mel ni nag gaynde yi góor yi amaloon nañ ab euh, match xarito seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa euh, Kenya mu mel itam match bi yombul woon ndax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, séq gaynde yi nag ñu ngi doon xamal rek ne gaynde yi faaw ñu def ndànk ngir rek baata laata ñuy gaañook yeneen yu ni mel waaye mujj mel ni nag mujj nañoo amal mbir mu ni mel ci ab mbégte ñu teelu reportage bu Mam Fatou Ndoye ak Massaer Ndiaye préparation bi jeex na tey parce que moom mooy dernier match ci préparation bi avant boobu dakaar lañ ko commencé waajal ko euh, def un tournoi international également à Dakar bu mooy avant ñuy départ nag dama woon entraîneur bi ak l'encadrement technique yëpp ñu def réunion mais daal ñoom ne nañ kontaan nañ ci préparation bi amul dara luñ wax Euh, les primes de qualification et de participation sont disponibles ils seront payés aujourd'hui même ñun ak fii bokkuñ kii comme ni ñu ko waxee habitude alimentaire mais bu ma ko jóori waxee démb incha allah on a trouvé une solution ñu woo ambassadeur bi ñu mettre ñu en rapport ak benn sénégalais buy def buy def euh, traiteuse bu nga xam ne ni moom moo fiy toggal sénégalais bu amee xaw jox nañ ko dépense tey pour mu toggal xale yi incha allah demee aussi dinañ ko def que ñu mën a lekk bu baax pour euh, dañoo waroon entraîner aussi li règlement bi wax dañoo war a entraîner Kigali Arena 48 heures avant la compétition malheureusement programme bi ñu jox nekku si donc mais bi ma ko gisee woo naa président fédération rwandais bu nga xam ne sama xarit la désiré wax naa ko ko mu ne woon mu ngi xool programmation bi mu ma defoon yëpp woote naa aussi Dakar secrétaire général fédération bu pour mu préparer benn correspondance bu ñu war a envoyé envoyé leen ko officiellement mbokk yi ay kàdduk maître Babacar Ndiaye ngeen doon teewlu xam ngeen ne moom mooy njiit bu euh, fédération sénégalaise bu euh, basketball doon addu ci li nga xam ne moom moo di entraînement yi ñeel euh, gaynde yi lépp lu ci war daal nañ koy jël ba mu mat sëkk ñu addu itam ci leneen muy li gën a fës ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku bëgg dee wéq l'observateur nañu moo tax it askan yu mbënd mi sëkkatal wéq nañu bay wéqe ubbil yéenekaay bi ay ñaxtoo ki xultu yu dul jeex la ñu dund ca banlieue bu Ndakaaru ñi nekk ci inondation yi fu ñu ko jekkoo rek defe ko fa wàcc ci mbedd yi manifesté taali pën a galan yoon yi salfaañe tali bi journal bi nañu démb ci mujj bi ministre intérieur Antoine Félix Diome demoon doon seeti ñu inondé dem nga mu fa dem moom ministre bi nee nañu wex ko xat diggante caaro yi Kër Masaar jàpp Tiwaawoon jak saaw fi dem rek dund na fi manifesté ca caaro yi moom ab cortège woon gaañ a nekk fay négocier négocier nañu ba sonn ña doon manifester faale wuñ leen mujjee gi sandarma yu LC yi la dem jëli ñoom ñoo débloqué situation bi ba cortège bu Antoine Diome mën jàll vox populi nañu askan wi ci biir ndox mi tay la ñu futtu ndax mer firnde li moo di manifester yi woon démb ci Kër Massar ak ci kaw autoroute APS bi journal bi nañu lora funi inondation yi naqaru xol wi ñu nekke xawma ku ko xamul waaye du ministre intérieur moom it démb yuuxoo nañu ko lu rëy libération xamal ñu ci xët mu njëkk ne li xew moo di askan wa ca banlieue bu ndakaaru ñoo becc seenu mer ak seen xol bu tàng ci mbedd mi muy ca Lansar di ca Tiwaawoon Jaksaaw jàmm gën fu ci nekk la aw nit jugee ñu daje ci autoroute à péage bi doon ñaxtu askan wa ca Kër Masaar ne leen du nga ñu ko dàq sinistré ya fa nekk ñoo baare taliba taal fa ay pëna foo tollu di seen saxaar suy sël-sëli ak sawara wuy jax-jaxi turbine bind ne banlieue bu ndakaaru fipp na ndax inondation yi ñoo leen di bëgg a rey l'info bind ne jaaxle ak jaxasoo ak mer le sinistré yi di dund jamono ji li ko dalee Grand Yoff ba Kër Masaar jàpp Pikine Géejawaay askan wa ñoo gën a tonkukaay la ñu tonk nee nañu nag bu leen kenn indil ay ceeba ki diwlin bàyyi suukar ndax soxla wuñu ko li ñu soxla moo di ku leen génnee ca ndox ma ñu nekk Walf Quotidien wax ñu ne banlieue ba révolté wu na nañu ndax ndox mi ak li mu leen teg la mënatul démb ba fa Antoine Diome jaaree jommi na népp cortège sax gaa doon manifester dañu ko bloqué Antoine Félix nañu lu toll ci juróom fukki hydrocureur ak téeméeri motopompe ak juróom fukk yóbbu leen ci zone yi inondé sursuwaa nañu li ñu gis démb moo di am Antoine mu dem daje ji ak askan wu mer déglu leen dig leen bàyyi fa la mu diggee si du nañu moo ngi plan Orsec plan Orsec bi moom la ñu déclenché ko rek samedi plan ba dikkaat na ngir sëkkal askan wi inondé di buuj ak tëmbale ñu génne leen ci biir ndox mi journal bi wax nañu it ñaar fukki milliards ak benn yu teg juróom-ñetti millions ñett ya maanaam 83 pour cent yee Sud Quotidien tegal ñu ci ne li ñu gis démb ca Kër Massar rafetul ministre Omar Gueye ak Cheikh Issa Sall général ADEM ñoo fa feeñalati seenug féewaloo gestion inondation yi ci Sénégal journal Le Quotidien pompe Afrique la ci gis nee nañu ci fukket ak juróom-benn yi ñu génn dugal nañu ci gestion inondation yi lu jege junni milliards te nawet bu ñëw rek askan wi am soxla Abdoulaye Dakaroo ko soxla suur soi nee nañu plateforme boobee ñu doon na a Dakar ay imam ay mouvement associatif ay élus ay jeunes ak ay jigéen ñoo ko samp li ñu gis moo di ngir mairie bu Ndakaaru dem ci loxoy waa Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Diouf Sarr rekk mooy solution bi plateforme bi nee nañu Macky Sall bu bëggee Benno Bokk Yaakaar teg loxo ci département bu Ndakaaru jarul muy sori baa muy sonn na lépp ci loxoy Abdoulaye Diouf Sarr les économies Diouf saar jiitu na gaañu sànni karawaas ADS taxaw na di plateforme bu taxaw temm ci jël mairie bu Ndakaaru teg ci loxoy Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu teg ko ci loxoy Macky Sall jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokki yéen itam naka noonu jaajëfal leen ci euh, teewlu bi dig daje ngoon incha allah 19h30 20h ak rédaction bu télévision euh, Futur Média lu mooy loolee itam des leen di woy ak suñu ay programme léegi léegi di ngeen am du njaay ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci internet bi jaa ngeen